aleykum waa Pikine asalaamualeykum maa ngi nuyu bu baax la coalition takku wàllu bi xam ne ñoo nekk fii au niveau du département de Pikine ma leen di wax ne coalition sàmm sa kàddu ñoo ñëw seet si leen tey ji ànd ak les leaders le président Khalifa Sall, le président Pape Djibril Fall, le président Thierno Bokoum, la brave dame Anta Babacar Ngom, mais également le parti pur représenté par Cher Tidiane Permettez-moi également remercier tous les militants Mention spéciale à notre tête de liste nationale, le député maire de la ville de Dakar, monsieur Barthélémy Diaz. C'est un honneur d'être reçu aujourd'hui par le maire de la ville de Pékin, Monsieur Abdoulaye Timbo. di sant bu baax suñu mbokk suñu xarit le maire Abdoulaye Diop mais di sant notre frère Mamadou Guèye di sant monsieur le maire de Dalifort ici présent mais sant surtout gaynde gi PDS bi Marie Sow Ndiaye ñëpp ñi nga xam ne ay responsable la ànd ak ñun tey ji ci randonnée bi nga xam ne def nañu ko ci département bu Pikine ñu ngi leen di sant ci seen mobilisation di leen wax mention spéciale suñu ñëwee Pikine ay doomu Pikine indi ñu ba ci carrefour bi c'est pas un choix hasardeux déedéet parce que nag bu fekkee ne dañu indi ci wetu stade Alassane Djigo ku nekk xam na ne symbole la ci département bu Pikine mais surtout ci marché bi nga xam ne mooy marché syndicat muy barab boo xam ne ay nit yoo nekk ci marché bi maa ngi leen di nuyu au le moment est important le moment est solennel surtout que dañu jàkkaarloo avec la jeunesse de Pikine une jeunesse qui a toujours joué les grands rôles mouvement politique au Sénégal tey jii waa Pikine seen jaaxle mooy jaaxle Sénégal tey jii jafe-jafe jeunesse su Pikine mooy jafe-jafe Sénégal bi ñu tabee nguur gu bees gi dañu leen waxoon ne fii la ñuy jaaree régler seeni problème ngeen am liggéey est-ce que am ngeen liggéey au contraire ñi ci amoon liggéey as néew dàq nañu leen ci société yi ñu nekkoon aujourd'hui l'administration sénégalaise est devenue une administration accaparée par waa Pastef parce que ku amul CV waxuloo ne Pastef nga bokk kenn du la jël ci biir administration et loolu dañ ko war a xeex te ni ñu koy xeexee mooy le 17 novembre voter massivement pour l'intercoalition doomu Pikine doomu Pikine ay bañkat lañu doomu Pikine bëgguñu gàcce doomu Pikine duñu da du kenn du leen jam naani doomu Pikine duñu ay ragal doomu Pikine fit jom fulla ak ngor ci doomu Pikine moo tax gars ma leen di bëgg a lancer un message extrêmement important dama ne ñun ñi taxaw fii kenn doolee lu fi góor jigéen ñun ñii taxaw fii ñun ñëpp dañuy xeex góor jigéen Sénégal premier ministre bu Sénégal rek ak ay xaritam ñoom ñoo ne dañuy toléré góor jigéen dégg naa sax barki démb ci vidéo yi benn waay su sant loo su bokk Pastef ne góor jigéen yi dañ leen war a jox seen gëdd nee na góor jigéen yi dañu leen war a warmal ki bokk Pastef nee na moom góor jigéen yi dañ leen war bàyyi xel parce que dañu am ay droit est-ce que yéen ànd ngeen ci loolu est-ce que yéen ànd ngeen ci dooleel góor jigéen Ousmane Sonko je lui ai lancé un défi nee naa ko génnal nga jàkkaarloog sénégalais yi te nga wax ne boo demee assemblée nationale da ngay xeex góor jigéen Ousmane Sonko. jënd na glace ci xeexu góor jigéen Ousmane Sonko ni mu jëndee glace ci xeex franc CFA noonu la jëndee glace ci xeex góor jigéen loolu nag dama bëgg ngeen xam ne nit ñii taxaw di l'intercoalition waa Amérique gënuñu noo gëm ay valeur bi ay nit taxawee Amérique ne dañuy dooleel góor jigéen Donald Trump ñëpp dafa taxaw ne moom day xeex góor jigéen waa Amérique fal kon ñun Sénégal danañu xeex góor jigéen danañu taxaw ci lu xeex góor jigéen moom Ousmane Sonko nee na day tolérer góor jigéen c'est son problème moom bir nañu ñun ne dootul xeex góor jigéen parce que punkalu góor jigéen yi ci àdduna ñëpp. ñuy sol ay jip góor yi dox di biiju ñëpp seet si nañu ko mu rek mu dalal leen fii ci Sénégal kon nag soyez prudents le 17 novembre waaye yéen waa Pikine yéen waa Guédiawaye gi ñu jëm su léegi waa suba waa Louga waa waa Mékhé yéen waa Sébikotane amaana yéen waa Sénégal suñu kilifa diine yi dañu leen fonk waaye waa Pastef ci seen projet bokk na ci tuutal suñuy kilifa diine dégg ngeen Cheikh Omar ngeen baal ma ci kàddu gi Cheikh Omar Diagne nee na mbindum seen Touba dañ koo war xoolaat parce que jubut Cheikh Omar Diagne nee na mbindum Seydi Aj Malik ngeen baal ma ci kàddu gi war nañu koo xoolaat itam waaw kooku est-ce que weg na suñu magu diine yi waaw kooku est-ce que warmaal na suñu magu diine yi kon bu ko Ousmane Sonko ak Diomaye Faye bàyyi ci palais bi c'est parce que ñoom ci seen bopp dañuy cautionner li Cheikh Omar Diagne di wax alors le 17 novembre il faudra leur donner cette raclée historique pour pour corriger la trajectoire tortueuse bi nga xam ne moom la Sénégal jël Sénégal yoon bi mu nekk baaxul ñoom waa Pastef dañuy nar xeex suñu kilifa diine yi donc encore une fois nañu joxe lépp lu ñu am nañu booloo doon benn comme ni ñu ko defee nii ci département bu Pikine nañu fexe ba assemblée nationale ñu dem fa am une majorité écrasante mais surtout fii ngeen nekk fexe leen ba voter l'intercoalition pour qu'au soir du 17 novembre incha allah ñu triompher ñu jëlee fi cuuni yi tey du ma wax daggkatu juuti yi parce que dañu am suñu mbokk fi nekk maa ngi lay ziar rusé naa la ko mon frère mais xam leen ne ay cuune ñoo ñu jiite xam leen ne ay nax saxandak ñoo ñu jiite xam leen ne ay nit lañu ñoo xam ne nit mën naa dagg tuuti sax am xam-xam xam nga kii di Mamadou Gueye Mamadou Gueye il est major de sa promotion c'est très important et Mamadou Gueye bu làkkee tubaab du wax déclinaison quinquennaux ak décennaux ah non c'est clair donc réew mi nañu ko teg ci ay loxo yoo xam ne njuumte la ni ñu koy rectifier incha allah c'est le dimanche set mbooloo bii ñu def mbooloo bu rassurer sénégalais yi la mbooloo bii ñu def àndandoo ci intercoalition bi mooy wane ne taxaw nañu pour jëflanteeg ñii nga xam ne amuñu xam-xam. pour jëflante ak ñi nga xam ne lenn dong la ñu def ci seen kàddu mooy wax naka sudul noonu mooy wax nax sa xandang mooy wax ay kàddu yoo xam ne amul njariñ Sénégal mooy wax ay kàddu yoo xam ne mënuñoo jëmale fenn kon nag rendez-vous le 17 incha allah vive Pikine vive l'intercoalition vive la coalition sàmm sa kàddu jërë ngeen jëf.